asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki murit yi ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen ziare di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bachir di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér naka noonu Serigne Cheikh Jëmb Fall waaye di ñaanal Serigne Sidi Muxtaar Mbacke suñu borom yokki leeram tax ñu ci barkeem waaye di ñaanal bu baax mboolem njabootuk Serigne Touba gi waaye mboolem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp yi di leen ñaanal suñu borom ñu yàgg fi lool te ànd ak wér di soññe rek ci li nga xam ne moom lañu ñu dëgmal kenn ku nekk xam na ne génn nañ koor gi te ñun Baye Fall bu ñu génnee koor gi rek luy suñu dëgmal mooy tëbaski ji tëbaski ji nag moo ne ci suñu kanam. ñi di ko soññee fii ci Touba Argentine muy xarit tabaski yi nga xam ne ñu ngi ko fi dajale di ko yóbbul ki fi toogal Cheikh Ibrahima Fall mu yóbbul ko ki fi toogal sëñ Touba ndax nit ku nekk kat euh, ci sa bunt ngay jaare ñun kii bunt ci sëñ Touba mooy Cheikh Ibra euh, ñu fas yéene dajale addi yi fii ci Touba Argentine muy xarit tabaski yi yóbbul ko Serigne Cheikh Fall jëm yóbbul ko Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Lamine Basir di ci woon ak mboolem fu waay nekk ci réew mi rek fii ci Touba Argentine ci njiital Serigne Mor Talla Sall ak Serigne Bamba Niang ah, di woo waa fédération bi ak fu jëwriñ nekk rek di woo tamit fépp foo xam ne daayira Serigne Touba nekk na fa ci addiya ji nga xam ne moom la yóbbul Serigne Cheikh Fall jëmb di ci soññ mbokki Baye Fall yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di wax ne ak Baye Fall du wàcc Baye Fall moom du wàcc suñ mu raminta nit ñi daan naan Baye Fall xaw a dee la mu ne Baye Fall mooy dee wet waaw Baye Fall daa war a dee wet ndigal nag bu xasee jóge biir kër Cheikh Ibrahima Fall ñun njabootu Cheikh Ibra amatul lu ñuy toog amatul lu ñuy xaar nan dëgmal li nga xam ne mooy xari tabaski gi dajalee ko yóbbul ko ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Fall jëm di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaan mbokkitaal bi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi suñu borom defal leen jàmm ak taw tawfeex ba ñu jekk ndigalal Serigne bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu